naataal ñaar fukk ak juróom jàngal na ay taalibeem ñu bëgg ñépp ba ci seeni noon ñu taxawu nit ci seeni soxla doonte bokkuñu xeet walla diine Jésus nettali na waa ji doon tukki ci benn dëkk ay sàmba booy dogale ko daldi koy dóor benn doxandéem fekk tukkikat boobu mu dimbali ko fajal ko ay gaañu gaañoom mu dimbali ko te yàlla tax fayeekuwul ko dara Jésus nee na ñuy roy ci waajooju